Kurang kenal ada sejak udah ñu Cek mau mau suñu borom dinañu dimbali ba prochaine fois dinañ dem final wala ñu jël champion d'Afrique quoi. alors fi mu nekk nii. yaa ngi ñibbi mais sa xel la nekk prochaine compétition waaw sama xel si la nekk mooy su ma yëgaatee compétition amaat médaille d'or quoi parce que. waaw mais bi Paris waaw xalaat naa Paris ak samay morom sax xalaat nañ Paris. parce que am na Salzbourg bi waaj am fii dans 15 jours am nañ si yaakaar ne mën nañ dem tirer ak Rabat encore. loolu noonu pour ñu balaa ñu yegg si Paris faaw ñu def ñaari compétition yooyu pour yàlla jàppale ñu mun a dem si qualification yi parce que fu mu toll nii faaw ñu liggéey bu baax pour mun a yeggali qualification yi bu baax waaw. ban club nga nekk. maa ngi nekk Daara ji. Daara ji waaw. très keneen beneen combattant. acca. waay dañoo ñàng quoi. danga la xam naa ne da ngay xam. ñàng tur bi naka la. man ma Talla Konaté. ban catégorie. ban club. sport point de Louga. waaw mais mais Talla. Talla sa combat. waaw ah, mais <laughs> tey ko dundee. waaw ah, vraiment dañuy sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah comme ni ko gars yi ko waxee affaire bi moom nekkul loo nga xam ne lu yomb la parce que ku nekk. parce que ku nekk xam ne actuellement li tere nelaw sportif yëpp mooy qualification jeux olympiques rawatina karaté fi mu ci toll nga xam dafa cher actuellement ba tax na. combat yi yëpp compétition yëpp aussi mënuñu wax ni boo ci demee amul benn combat boo nga xam ne si day mën a yomb. mais fi mu nekk nii moom toog amatul nelaw amatul. non amatul yaakaar naa ne amatul parce que bu ñu ko mayee bu ñu ko ñëpp mayee tamit ñun duñ ko def parce que li xew moo tax ñëpp ñu ngi rawante pour fexe am point Jeux olympiques pour fexe woon nañu qualification. médaille bi koo ko déjee. non médaille bi maa ngi final final bronze la kan nga ko tuddee. non médaille bi tuddee naa la ko. mais booy yow noo tuddee yow. Ah, Bey. ah Bey. mais Fallou. Fallou nga nekk yow. non mooy le 60 laay tiré mais ci Sambina bi euh, par équipe laa tiré. Uh-huh. par équipe laa yëg. par équipe nga yëg. waaw mais métti na équipe bi de. waaw métti na métti na métti na defoon fi am solo ñëw final ak Afrique du a baax a baax. yow ban équipe nga ne. man. Euh, club club Jio Karaté Touba. Jio Jio Karaté Touba waaw Touba tey. waaw waaw Touba maa ngi leen di nuyu di leen wax ne sant nañu bu baax ñaanal si na bu baax baax a baax di wax ne ñu ngi ñëw léegi ñu gën ñu jàppale xam ni dafa am ay objectif yu nekk suñu kanam ñu war ñu gën ñu jàppale bu baax a baax daal. très bien parce ci liggéey bi bu baax. jërëjëf merci beaucoup merci. merci. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.